ñaanal sëy bu barkeel rek son bi normal la wala ça va man daal ndekete li ma doon wax ci fii yëpp ak ci plateau télé yi ñàkk xamama jàpp man ndekete xaw moon li may wax ndekete Macky Sall a ngi joob ñun ñoo joobul xam nga ni ku fi toogati daal réew bi dafa naqadi ah <laughs> jën réew bu naqadee di nga tax ñaareel réew bu naqadee dina tax ñaareel ngi joob bàyyi la li ngeen def Macky ngi joob jën kaay toog fii ñu waxtaan ngay reetaan <laughs> kaay toog fii ñu waxtaan ah déedéet amul ay seetaan ndax si ndaje de kaay toog fii ñu waxtaan Moustapha Moustapha yow lu waaj lu booy bi di wax doo xool Moustapha nekk da yaa ngi doon xool de ay Moustapha est-ce que foofu nga yem ci xool yi Moustapha foofu kese nga yem ci xool yi wala dangay jël ñetteel <laughs> DG bu am fite gi nii la <laughs> aja waa baax la <laughs> xam naa ba joxee defaat explication rek ba ñëwaat ci live bi defaat explication <laughs> mais en tout cas dañ leen di ñaanal bu baax a baax noonu la nit moom boo gisee euh, loo bëgg da ngay def farata def fulla ak fayda noonu la de mhm. nee nañ kii travaille à l'hôtel à l'hôtel mange à l'hôtel kii travaille nag ay <laughs> damay sa xeetaan ba dama nekk di liggéey nag way déconcentré nii bàyyi la seen ngeen def quoi man damay liggéey live dañuy def di liggéey ngeen nekk fii di mbalak di def seen yi bàyyi la leen def dëgg yàlla na tey pour mën wax ci ay actualité ak Sénégal di dina xaw a doy parce que tey jii boo toogee fii di naan dëkk bi neexul Macky Sall liggéeyul euh, soo ko fii <laughs> ba gars yi di ma yow dëkk bi dañ lay daqanee sa sa patron di takk jaaga <laughs> xaw ma ndox sax sax la mais Moussa Ba wuyu ma de xam naa ni yaa ngi may seetaan ma ni si xar yi kase nga yow walla dañuy laajte nag parce que célibataire yi nekk Walfadjri bëgg nañ de dañuy laajte te comme yaa ngi jox feu vert moom instant yi nii rédaction woo édition woo live woo ku fa ne célibataire dañ commencé dugal ay dossier comme kii mange kii travaille à l'hôtel mange à l'hôtel la ñun ñëpp daañu lekk ba regg ci hôtel bi incha allah jën boo guddee tee wàcc nga madame non c'est que cest rek <laughs> ay dañu coupé signal beeg Babacar Diagne ak <laughs> loolu moom leer na ay guddee guddee wàcc nii léegi dootoo guddee wàcc de sa madame dootu la wóolooti 18h fu mu jotee 18h30 nga naan non c'est que Babacar Diagne dafa coupé suñu signal ak ay Cheikh Niass dafa woon réunion urgence ak hmm, day naan jéen est-ce que nekkul di Moustapha Moustapha Lu saa yéen ñëpp am ngeen problème mais baax na c'est bien comme xale yi takk ñu kay mag yi takk rek. aca ñu dugg ci <laughs> ci jublu ci waxtaan bi waxtaan bi la te yéen ko wax naa ngeen ma ngeen jox ma sujet joxoo leen ma sujet kay jox leen ma sujet yéen a may jox sujet depuis voilà. Moustapha Diop man wax maa ak yow de Moustapha rek laa wax balaa ñu naan Moustapha Diop laa wax man wax ma Moustapha Diop de Moustapha laay waxal. waaw ci kanam tuuti ñu waxtaanee kii bi ah euh, meeting meeting euh, bon